dikkati naa giiru dund day la ñu tëj René Captain Bassène ak Omar Ampay Bodian tribune yéen ne ma giiru dund googee la ñu daal di tëj César Atoute Badiane donte nag ñëwu fi yéen kaay bi dee di may xamal ne chambre criminelle bu sigi day moo daal atte ca faat gu métti goo xam ne amoon na ca ba fa bayoo tribune daal dina ma ca boobule faat ñañ ko séqaloon ñëpp daal dinañ leen di bàyyi ñu génn waaye René Captain Bassène ak Omar Ampay day seen giiru dund di yeggalee Sud Quotidien daal di may xamal ne Omar Ampay Bodian ak César Atou Badiane ñoom ñëpp nag perpétuité lañ leen daal di tëj ñaari condamnation yoo xam ne bu ci nekk juróom benn weer la bu ànd ak sursis am na ca am fukk ak benn yoo xam ne dañu leen bàyyi ñu ñibbi seen kër gannaaw ñeenti at ak weer yoo xam ne def nañ ko ca kaso ba maître Ciré Clédor Ly mi nga xam ne moom moo leen doon défendre ne juge yi dëgg dëgg déglu nañu waaye coow la mooy dañoo daal di déggul l'enquête quotidien daal di may xamal ne nguurug Sénégal ci boppam bu doonu jaasi la yor mën nañ jàpp ne moo daal di gorote waa MFDC ndax nag chambre criminelle bi daan gu gi nga xam ne daal dina koy daan René Capté Bassène ak ñamu àndaloon daal dinay wane nii ab procès la boo xam ne ne dafa mel dañ ko doon def nag ak waa MFDC maître Clédor li ci yéenekaay bi ne loolu sax moom moo am ndax yi nag dañ leen doon xoolee na ñuy àtte waa MFDC ay rebelle moom kuur ba ci boppam l'enquête ko dañuy xamal ma ne daal na ñuy dëggal nag mandat d'arrêt bi nga xam ne daal dinañ koy def jëmale ci César Atoute Badiane l'évidence yéenekaay ne ma boobu day nguuru Sénégal ma ngay muus muus lu ci kaw position bi nag moom ma Macky Sall ci boppam tournée ba mu waroon amal ci biir réew mi da koo yaakaar waroon amal ab manifester ñoomi it daal koy annuler l'évidence yéen kaay ne ma mbaadu sabab gi ak mujjantal gi yépp du fexe nag ba autorisation bi nga xam ne war nañ ko jox yeewi askan wi ngir ñu daal di manifester le bii loolee la ñuy daal di bañ critique yéen kaay ne ma loo ci mënti am daal laataa législative yi gars yi nee ñu weer wi yépp dañu tëj gémmiñ ñi wax si boppam moo dul amati nag ci réew mi tribune yéen kaay samp laaj de ne waa Benno Bokk Yaakaar seen manifestation gi nga xam ne bëggoon nañ ko amal lool la waral ñu annuler ko mbaadu nag waa yeewi askan wi ci boppam la ñu bëgg tënk bëgg ñoom it ñu daal di annuler seen i manifeste yi ñu bëggoon amal ci réew mi Barthélémy Dias ci le journal ne kenn laa wax ci àdduna te dara it mënta tere suñu rassemblement àjjuma ji ñu amal ko ci réew mi boobu réew mi quotidien mag ñuy xamal ne màggetub jinne day lu mu màgget màgget am nga la ñu moo xam ne jommal na ne te président Macky Sall mii nag saabu bu xëy di jommal l'opposition bi yéen kaay bi daal di may xamal ne ñu bari ña nga xam ne ñoo taxawoon démb di saaga président Macky Sall tey jii ñoo toog ci peggam di ko xalamal ak di ko tagalimaama moom président Macky Sall yéen kaay bi dem sax faf ba sampub laaj daal laaj lan mooy secret président Macky Sall nag jar naa laaj ndax nag mu di ay maire mu di ay opposant simple mu di ay influenceur ak ñu mu mënti doon te daan ñi président maki Sall ñu ci ëpp tey ñu ngi ci peggam Macky Sall nag bu ndee laam-laamee ñetteel bi mandat la bëgg ci réewum Sénégal day dañoo xool li jëfam moom président Macky Sall ma ngi ci jeunesse ba yéen kaay bi président Macky Sall ma ngi ci sëriñ si yéen kaay bi ne ma président Macky Sall ma nga ca maire ya président Macky Sall ma nga ca politique ya président Macky Sall ma nga ca opposition ba président Macky Sall bawul kenn ma ngay fegg ñëpp wetam jëf fu ko bëgg troisième mandat lu mu tribune yéen kaay ne ma président Macky Sall mi ngi fegg ci wetam de bay fegg nag ñoo xam ne ay saagakat pire la ñu gannaaw transhumant yi ñay nekk ci internet bi di ko saaga ak di saaga askan wi ñooñee la Macky Sall jël nag fegg ci wetam yéen kaay dee média bi daal di ne ma moom président Macky Sall moo fi doon wax yàggul dara ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci internet bi di saaga naan leen mënuñoo bàyyi nag am réew ay nit di ko yàq ci yàq goo xam ne nii dañuy jël ay doomu aadama di leen salteel di leen tilimal di yàq yàqeen ay doomu aadama di leen yàq keteme di jël seeni njaboot njaboot di leen boole ci mbir ma di leen yàq yàq goo xam ne nag teguñu ko fenn président Macky Sall ko fi waxoon tribune yéene kaay ne ma la président Macky Sall woote woon nag ci gouvernance bu sobre ak vertueuse daanaka moo ci njëkk génne boppam le mandat yéene kaay ne ma ñi nga xam ne nag ñooy toog ci digg réew mi di saaga askan wi ñooñee la président Macky Sall di honoré tey te bu leen fàtte nag njëkkeewu ko barki démb ña doon saaga ci wàllu bot di kon tey xeet honoré réew mi le vrai moo taxit daal dinañ leen di xaajale ñoom waa Bennoo Bokk Yaakaar ñu bari nag ci ñoom ànduñu ci doxal nu président Macky Sall bi jàpp nan ni nag saagakat yeeg ña doon xas daanaka da leen war a bàyyi rek ñu daal di tàllal direct news xamal ma ne ab saagakat day la président Macky Sall daal di dalal ca Paris mu daal di yàq yaxeet nag image bu baax boo xam ne président Macky Sall jotoon na ko tabaxal boppam ci réew mi mu di image koo xam ne da doon boole moo ne day Macky Sall jëf na ci réew mi jëf joo xam ne ñëpp tàcc woon nañ ko nag moom président Macky Sall moo fi taxawal tour bu RTS moom président Macky Sall moo fi taxawal stade Abdoulaye Wade moom président Macky Sall moo fi taxawal palais des sports bu Diamniadio ak itam Dakar moo fi taxawal Angleterre moom président Macky Sall pont bu Foundiougne moom la moom président Macky moo fi taxawal daal di jébbale ay bourse familiale ñetti téeméeri junniy doomu aadama ci réew mi ci ay cash transfert yoo xam ne jébbal na leen ko dem nag ba président Macky Sall doo noon royu kaay fii ci dénduk Afrique tey tey président Macky nag bëgg yàq boobu la image ak ay nit yoo xam ni ma ngi leen di dalal ci dalal goo xam ne la ëpp ci sénégalais yi ànduñ ci le quotidien le quotidien na ma président Macky Sall yi tii jëfam de daal centre boo xam ne fa lañ daal di tàggatoo l'évidence yéen kaay ne ma moom président Macky Sall li day moo fi yokk salaire u jàngalekat yi mouvement national des enseignants républicains di ko rafetlu may mën a si soxoxuma ci kanamu ministre Dame Diop ak Mamadou Talla daal di rafetlu di ko enseignants yi bàyyi ko ci fukk ak ñeenti ci réewum Sénégal xam le ni nag jéego yi président Macky Sall ci njàng meeg mi syndicat yi ak état bi ci boppam ñoo war a boole sunu doole ngir daal nag ñoŋal jàng réewum Sénégal ndax ay kàngam ñi ci réew mi may mën a si soxoxuma xam le ni am nan gan républicain yi mu di Moussa Sagna mi nga xam ne moo doon coordonnateur national bu enseignant patriote yu Sénégal nga xam ne daal dinay fekki mouvement national des enseignants républicains may mun a si soxoxu ma ne boole doole rek jàppale Alioune Ndoye ci Ndakaar waaye tam Mimi Touré ci Sénégal ngir nag Benno Bokk Yaakaar daal di am ndam Vox Populi ne ma ka am ndam te yëmbal day la Serigne Mansour Sy Djamil dal ci kawam daal di xam le ni nag Amadou Xot moo gën fuuf Baara Gaye moom Serigne Mansour Sy Djamil ne Baara Gaye ci boppam moo taxawul benn place altine ma nga PDS talaata mi ngi pur dimbali askan wi sëriñ bi ne lii bu yàggee de mënuroo ki naxe moom sëriñ Mansour Sy Djamil ci boppam Ousmane Gaye ne ko lan la bëgg laaj mooy sëriñ Mansour Sy Djamil kañ ngay bàyyi yeewi askan wi ndax nag la ngay sëkkal Baara moom moo di li ko pur ñëw daal di koy tabb pur bi nga xam ne bokk na ci samp yeewi askan wi kon Baara Gaye lan la def lu ci mënti am tribune yéen kaay ma ngay andi ay gindi ci ñaari sëriñ Assane Mbacké yi nga xam ne daal dina leen di jàpp yéen kaay bi dee média bi di leeral ne bokkuñu de ñaari sëriñ Assane Mbacké la yoo xam ne kenn bokku ci ak moom moo di Mali ak tëj gi ak produit yi nga xam ne bëgguñu mu génn ci réew mi xar bokku ci yendu leen ak jàmm mbokk daal ku nekk war na jël ay responsabilité am réew mi ñëpp a ko bokk te jàmm rek fi xaj jàmm dong fi xaj lii tey su ma nee sotti dañoo am jàmm waaye bu jàmm jeexul lii duñu ko tal kon ci làmmiñu sëriñ bi ak njaboot gi mi ngi wax ak waa Sénégal gépp rawatina ñi nga xam ñoo nekk ci pencum politique ñu xam ni Sénégal ñëpp a ko bokk kon nag na dund ñu rafet nañu defaraat kàddu yi defaraat toggin yi defaraat waxin yi melokaan ngir jàmm joojulee sax kenn rek lañ ci war a ñaax mooy njiitu réew mi Macky Sall moom mi nga xamante ne su dëgëree moo war a yolomal sëriñ bi nag mi ngi ñaax président Macky Sall sëriñ bi nee su demee ba dang te moom rek ko mën a yolomal na teg lépp te yolomal lépp loolu la askanu Sénégal yar kenn mënta ñaan kenn ku dul moom kon sëriñ baa ngi koy ñaan ñi xam ne ñooy dox itam di wut baat baat te nga ñëw ci moom ni ko maa la fa bëgg a nekkal fexeel mu gëm la kon kenn ku ci ne ci ñiy xëccoo am na responsabilité nañu xool askan wi nañu xool ormay Sénégal ñu xool valeur yi ñu yëkkati kàddu yooyu lee ci jamono ji nga xamante ne benn délégation bu Tahirou Sarr di éco opérateur économique di woon na am ndimbal ci daara yi nga xamante ne ñoo nekk ca Thiénaba ak Ndiassane xam ngeen ne kon waa waas Askan Wi seen euh, bëgg-bëgg moo di woote ab manifestation 17 juin euh, Babacar Fall euh, bu grade jàpp ne kon naka nguur gi bëgg ay loolee dara aw ci yoon expert électoral bi nee na nag du benn disposition bu loi bu nga xam ne mooy interdire ab acteur politique amal ay activité ci fii ñu toll nii Babacar Fall sax dafay gis ne kon li nga xam ne mooy la gouverneur bi wax ni aw lay loolee média yi képp la concerné ñu ànd sax nang ko bàkk yokku jamonoy pré campagne bi ñeel élection législative yi ñu dëgmal ñi ngi ko jàpp ajuma fukki fan ci weeru juin ba samedi juróom-ñeenti fan ci weeru juillet 2022 ci bile app ter nañu mbooleem propagande boo xam ne des koy jaarale ci ëttu taskatu xibaar yi ne ci réew mi moo xam public la wala privé waaye nag woy politique yi ñoom mën nañoo continuer di amal seeni porte à porte seeni réunion publique d'information wala sax ay ndaje politique bu ñu doyloo Babacar Fall bu Gradec loolee bu amee lenn képp la ñuy tere te xibaar yi wasaare lu ñu mel bu ñu doyloo expert électoral bi ci yokku ne amul benn disposition ci loi électorale bi buy tere kujjee gi amal rassemblement politique bu ñu doyloo Babacar Fall bu Gradec gouverneur bu dakaar ci communiqué am day jéem a lëndëmal xel yi ngir tere manifestation bi coalition Yewwi Askan Wi bëgg amal fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi ñu ne moom expert électoral bi di métetlu li gouverneur bëgg wañ loxo yoon ngir bëgg a régler ay question politique fenn fu mu dëppoo ak yoon ndax du moom gouverneur de Dakar moo war a régler question bi nga xam ne sénéral lañ ko jagleel te mooy fàttali taskatu xibaar yi ci ne dañoo war a moytandiku lépp lu ñeel propagande ci jamonoy pré-campagne bi ñu ne moom it expert électoral la dafa euh, fekk si Babacar Fall la mu wax nee ñu nag loi ba nga xam ne euh, fa la gouverneur sukkandiku ngir bëgg aaya manifestation waaye yeewi tegu ko fen ndax loole sax xeewi na Jibril ñi ngi di fàttali kon nag bëgg amal sa doxum ñaxtu daal def sa déclaration loolee waaye politique yi dañu ko xeex dale ko atum 1980 ba léegi ay kàddoom ñu teewlu ko nanga ko baka yokku amul benn disposition ci ci code électoral bi buy tere parti politique yi ñu def seen activité normale li code électoral bi wax bépp déclaration wala manifestation boo xam ne dafay soutenir benn candidat wala liste de candidats boo xam ne day sukkandiku ci taskatu xabaar yi loi boobu ba koy def ci année quatre-vingt quatre-vingt booba taskatu xabaar yi journaux yi organe de presse yi bëriwul woon ni mu bëreewul nii booba média d'état yi ñoo fi nekkoon contexte boobu moo taxoon lu jiitu élection yi ñu tere bépp activité boo xam ne dafay jàppale bi candidat wala bee candidat te muy sukkandiku ci média yi mais tey bi nga xamee ne média yi dem na ba bëri comme ni mu bëree nga xam ne ñëpp jote nañ ci loi dafay mel ni loi boobu dafa xaw a dépassé le contexte a changé il faudrait que loi boobu ñu adapté ko à la situation voilà ñoo ko gisandoo élage mu mel ni kon euh, ba Ndiassane ñu ngay wooteeg daal ñoom euh, kër diine yi ngal la waay waaye politique yi nañu àndaaxub daal waaye dañu gis ne euh, manifestation bii nga xam ne moo war a am soo moytul dañu koy aaye te gis nga expert électoral luñ ci wax waaye moom ñu seen tànk xëy na Pierre daf ko réactualiser waat demaat def reportage mm-hmm. mais kilifa diine yi ci mosuñoo jóg ci di woote jàmm tawexa yépp foo ci mën di dem parce que ñoom ñoo njaboote Sénégal mm-hmm. séq réew mi ak Euh, li nga xam ne mooy état bi état yi di changer mais ñoom toujours fa ñu nekkoon la ñu nekk oriente nit ñi di leen woon ci jàmm ak dal mais balaa doon neex na day fekk ñi jiite dimbali leen sukkandiku ci lu loi wax ak li texte yi wax gouverneur nee na du ñu def manifestation loi ba mu sukkandiku nee nañu euh, politique taxul mais média moo tax njuumte am na kon déjà na dellu gannaaw. Mhm. bàyyi ñi def manifestation. defoon nañu manifestation ci jàmm ak salaam war defaat baneen. pourquoi ñu bëgg anticiper xañ leen ko. waa hmm. benn Bokk Yaakaar loo tax ñu teg ci suuf seen manifestation bi man ñi gëm ne bluff la ci laa bokk. parce que amul lu mën a tee ñu def ko manifestation boo xamante ni bii da ngay véhiculer ay discours ay message jëmale ko ci sa ay électeurs wala sa ay militants aajuwul teg ci suuf nañ ko def comme ni ko ñee defee. Hmm. mais euh, comme ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàllu yoon Babacar Fall nee na euh, code électoral waajulul loi bu mel ni bi gouverneur wax. mais léegi moom wax na explique Sénégalais yi kon ci fan la sukkaas ndiku pour jëgal jël boobu la dogal dañ ko ko bañal à cent pour cent mhm. administration la mun na yëg lu ñëpp yëgul mais opinion bi war nañu xam que beneen beneen hypothèse la xëy na bu mën a tax ñu ni manif du am mais na ko leeral Sénégalais yi mhm. mais fa mu sukkaas ndiku nee nañ ko loolu amul kon jumtee ngi am léegi nag kon bu coow amee moom na assumer responsabilité am lu ñu ko aaye gi mu aaye mais fa mu ku nee nañ ko du foofa ñooña politique taxul média moo tax ñuy wax te sax faf ji njing comme ni ko jibril ñing waxee loolu dafa obsolète tey bu ñu la nee euh, bu ñu la nee euh, yaa ngi def sa manifestation Mame Mbaye Ndao waa Sen TV duñ ko jël waa Walf duñ ko jël waa keneen du ko jël mais nga sa sa kër ngay toog ci sa salle wala ci sa euh, siège ak sa ay militants lu gàtt gàtt gàtt juróomi junni nit ñu ëpp ay vie californe fuuf. Mm-hmm. ñoo lay gis. Mhm. donc donc loolu du problème bi moo tax loi bi dafa obsolète léegi nag gouverneur pour ñu bañ a éviter ba ñu eggee ci le 17 réew mi di pëccëxoo na teel a leeral opinion bi ni xëy na beneen hypothèse la ci wàllu kaaraange mun naa nekk. Mhm. mun nañoo yëglu Sénégalais yëgul mun nañu éviter loo xam ne xëy na moo gën ci réew mi. mais que sénégalais xam ni loolu mooy xemeem téefam mais fi mu sukkandiku ci ay euh, pré campagne kenn amul sañ-sañu wane activité politique loolu média la mais kenn amul sañ-sañu def activité politique moom binduñu ko fenn. te bindu ko fenn loolu loolu leer na est-ce que tamit appel bi nga xam ne euh, sunu religieux yi ñu ngi koy euh, def du tàbbi si noppi ku tëx ndax nag muy état di opposition terrain confrontement la la la nekk jamono ji. confrontation. confrontation xuloo wala xeex wala affrontement plutôt. Euh, Mambay fu fu mu amee dafa am ñaari camp mais ñan ñooy dooleel camp yooyu ce sont les populations yow Mansour man sama moroom ak keneen ak keneen du ñooñu ngay woo naan leen ñëw leen xeex ci loo xamee ni xamuñu lan mooy sabab bi muy opposition comme pouvoir mhm. doo dem ci mbedd mi gàddu sa xeer boo xamee ni yow amoo ci benn conviction ci la ngay def parce que liñ naan da ngay topp la foule wala la masse loolu c'est pour man beneen beneen cas la gis nga les les les dignitaires religieux les hommes religieux ci wàll wu nekk nag ci biir mu Sénégal Mansour l'a dit c'est pas la première fois ñu ci woote jamono fu mu toll ci rawatina ñu jëm ci wàllug ay élections. Mhm. dañu dégg seen kàddu dañ leen di gis également euh, xam nga démb ñuy wax maam Thierno Birahim bu euh, borom daaru mhm. la mu wax la waral mu wax ko mhm. ñu gis ci même jour bi ñuy indi ay interview Cheikh Mahi Ibrahim Niass mhm. gis ci même jour bu ñu indi interview wala kàddu yoo xamee ni mu ngi tukkee ci sëñ Mountakha Mbacké Bachir ci lu jëm mhm. ci wàllu julli rek yooyu waaye ku ci nekk di nga dugal ci biir ci say kàddu mhm. jàmm léegi nag ñeen ñoo war a déglu jàmm jooju ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite suñu ne jiite c'est pas que yow yaa jiite réew waaye tamit ki jiite parti politique wala ki jiite mbooloo kooku moom moo ko war a mën a dégg. Mhm. léegi lu jëm ci wàllug euh, gouverneur xanaa ci yoon ah, ci logique gouverneur u Dakar bu waxee gouverneur u Thiès gouverneur u yeneen région yëpp dañ bind samit seen seen communiqué wala ñuy toftal seen communiqué ci communiqué wu CNRA euh, CNRA xam nga lan la def CNRA dafa rappeler ay dispositions Euh, code électoral loi électorale ci lu soxol média lu ci yoonu gouverneur hmm. gouverneur du moom mooy réguler média CNRA hmm. organe la boo xam moom moo yor wàllu régulation média te ñoom ñoo fàttali waa média ne ne attention dañu nekk ci période boo xamee ni amu leen sañ-sañu def ay propagande ak ay xawma lan déguisé ak yooyu euh, te média nationaux lañ ko wax ça veut tey ku mel ni BBC wala ku mel ni RFI bu ko neexee def lu ko neex kenn du ko wax absolument rien du tout sur ce plan là parce que loi bi ci boppam moom moo ko génnewul mais xam nga lan laa su man xam nga de plus en plus boo xoolee dans les manifestations ce sont pas les médias classiques ñoom ñooy couvrir les manifestations non. Uh-huh. de plus en plus c'est uh-huh. un Mambay qui a son téléphone qui a son site internet mais moom message ba muy euh, wala euh, la muy jël moom direct ba muy def yow boo maytul moom moo ëpp ñu koy seetaan euh, que télévision classique yi ñuy wax wala média classique yooyu uh-huh. dem nañ ba léegi même média classique yi ñoom adapté wu nañu di yore ñoom i tamit ay uh-huh. site internet ci boo xoolee presque groupe de presse yëpp am nañ site internet boo xamee ni bu ñu soxlaa dañuy def direct léegi nag direct boobu comme mënoo mën nga ko privé média yu mel ni Sen TV TFM Walf FM Walf TV et cetera mais pour nga privé ko ñu ñu woowee ay euh, influenceur wala ñu yore ay Euh, chaîne YouTube wala Facebook di def ay live c'est ça qui est compliqué est-ce que du gouverneur foofu lu bëggoon jaare mais c'est pas son rôle sur ce plan-là c'est le rôle mais exclusivement dévolu bu euh, CNRA. voilà ndax rôle am la moom président Macky muy dooleel saagakat yi laaj bi daal dinay euh, samp ndax euh, ba muy falu ñu bëri dañ ko doon gis mu ne kon gestion bu nga xam ne ni dafay sobre vertueuse si loolee lay dox waaye nag loolee dafa mel ni ñu ngi tàmbalee gis safaan wa ndax nag saagakat yi ñoom la gën a dooleel fii ci réew mi bi ci mujj mooy kamu